champion ñu ngi lay ziar. maa ngi nuyu. maa ngi am a baax kay. gars yi ñëpp ñu si jàmm waaw ñu ngi waajal saison bi waaw. bu baax a baax tey ban yëg-yëg nga am Ahlou Lamb Sénégal boole la si bis bi ñi nga xam ne ñooy les meilleurs ñu lay décorer nga def saison boo xam ne donte gàtt na nga taxaw si douze drapeaux poids lourds ta nga nekk mbërum poids léger boo ñu ko mënoon expliquer lan lay doon. waaw sant yàlla rek affaire bi moom yëpp si mbirum yàlla la rek a gëm sa bopp tamit respecté entraînement yi waaw loolu la rek tey jii nii loolu gëm sa bopp ak respecté àndam mais dañ ni rajaxe mbërum poids léger la mu am douze drapeaux poids lourd loolu lan nañ ko mën a expliquer li mu bëree poids lourd moo ëpp wala lan la wala ren poids lourd kese la bëri. non ren lu ma bëree tànk bëriwut poids poids lourd laa gën a bëri ren waaw. respecté entraînement yi rek am ngëm-ngëm ne man damaa war a bëri poids lourd war a bëree ay drapeaux loolu kese la waaw. respecté entraînement yi xam ne da ngaa war a bëre poids lourd moo tax nga bëre ko mais est ce que mën nañoo xaar euh, Radiakhèr ren si saison bi ñu dëgmal mu fixé li nga xam ne mooy poids lourd te bañ a bëre ta waaw Radiakhèr moom instant yi nii mbërum poids la waaw ñu ngi ci entraînement yi waaw di yokk doole ji poids moom doon nañ ko ba pare quoi waaw loolu yàlla def na ko ba pare waaw am nañ gëm-gëm boobu man yëg-yëg nga am si Ahlou Lamb Sénégal di la décorer lan nga yëgee dundee bis bi tey. waaw rek di kontaan ci waa Ahlou loolu la waaw. en tant que sa mag tamit grand ambulance doon ambassadeur si bis bi fépp fu ñuy dem fu nekk mu nekk sunu ambassadeur jiite ñu ban taxawaayam ngay gis ak tey jii ni nga ñëwee topp si ay tànkam ba doon li nga doon noonu loo ñu mën a wax si jàmbaar ñu. waaw gis nga de waaw sunu grand la rek ñoom dañu dañu topp si suñ sunu grand yi rek lépp lu ñu digal ñu def ko lépp lu ñu tere ñu bàyyi ko waaw di ci di kontaan ci moom bu baax tamit moom it waaw.